salaam sëñ Fall maa ngi lay ziar tey moom xam naa dangay ngay waañ ak dekkali gi rek. ndax <laughs> jigéen ñaaye. jeex na 8 <laughs> mars mooy xibaar bi gën a fës mbokk yi ginnaaw bi ñu leen ziaree ci xibaar yi tey yi muy euh, bëccëg gi nu jagleel ci àddina euh, soxna yi ak seen ak ak yelleef euh, ci Sénégal nag jibal nañu ñoom soxna yi ginnaaw jéego yi ak yooyee ak yelleef yi def ay tawat ak jàmbat yeneen bokk na ca ñoom ñi mucc bees ñu daal di gën a yaatal jamono yi dalloog noppalu gi di wàllu congé maternité ngir gën leen may ni ñu ko waxee ak dallu wàllu xibaar bokk na ci it euh, ñaawlu gi ñeel yenn ciy bàjjandi gox ci diwaan fu mel ni mbuur ak euh, siife ga fa euh, lu ñu fa nemmeeku lu jéggi dayo loola it sàkku nañ ci kilifa yi ñu taxaw ci ak it yokk sensibilisation gi xibaar beneen di lakk gu miti démb ca fi nga xamante ni mooy marché Sandaga ci salle des ventes foofu it borom bi def na jàmm bakkan rotu ca waaye la fa yàqu ci matériel ak la fa dem ci ci ci koppar euh, bari lool euh, wax ji ñëwati ci taabal ji wàllu mbiri bouche d'incendie di euh, xeeti robinet mbedd yooyee ñu mën di rootee su jéyee yu ni mel di lakk amee ak yeneen ci technique bi Abdoulaye Diop. jërë ngeen jëf ci ànd beeg RFM ñu ngi ndakaaru Médina rue 15 angle corniche immeuble El Hadj Eliman Ndour ñu tàmbalee xibaar yi delloo njukkal jaajëfal kañ sunu jigéen ñu baax ñi macha allah euh, yu Sénégal waaye yu àddina yëpp tey jii bëccëg gi ñu leen jagleel ci wàllu nekkin ak ak yelleef doomu adama ci fànn woowee nag ñu fàttali ne atum 1977 ak léegi la ko mbootaay xeeti Nations Unies euh, nangu bëccëg gi ci wàllu euh, taxawal gi ren li ñu ciy waxtaanee mooy fexe ba ak yamale am ngir ëllëg gu sax ëllëg gu am ak mucc ci euh, fànn weneen nit ñoom jigéen di bokk nañ ci li nga xamante ni mooy mbébét yi daal mooy ñu yokk euh, diirëb dallu gi ginnaaw ak mucc euh, ci ci ñoom reportage Nafisatu Ndiaye ci bés bi ñu jagleel képp kuy jigéen ci àddina wërngal këpp jigéenu Sénégal ñu ngi ciy profité ngir sàkku ñu yokkal leen seen durée congé de maternité Sara Diop di soxna su muuru ba daj ñu taseeg moom ci wetu jumaay Masaalikul Jinaan moom jàpp na ni jigéen yu amul moyen ñoo ko gën a yittewoo congé bi gàtt la moom dafay fekk sa doom dëgëragul daal mi ngi mënagul sax toog day tëdd rek boo bëggee trois mois nga bëgg dem liggéeyi day xaw a doy waar daal à moins que ah xanaa nga am moyen yu ku lay tëye sa doom mais pour man ñi amul moyen laay waxal daal nga xam ne amuñu ku leen tëyal seen doom ñooñu daal war nañ leen a jàppale daal. ndaw si ñu fekk ko ci volant wu otoom muy nëbbu turam moom it lii mooy xalaatam. jigéen bu ëmbee ba wasin dafa war a toppatoowaat yaramam toppatoo doomam surtout jigéen ñi nga xam ne dañuy liggéeyi. waa ji ab ingénieur en domicile la ñu dajeeg moom ci buntu benn clinique moom gis na ni war nañu mën a yokk bu baax diiru congé de maternité. war nañ ko mën a yokkal jigéen ñi parce que jigéen moom mooy toppatoo xale te xale dafa amee àq donc ci début bi war na ko mën a assister taxaw ko ba mu dëgër wala comme ça mu mën ñu xale bi mën a màgg su manqué ay nutriments ñu mën koo assister ndax ko góor moom d'habitude mooy dem di uti mais léegi jamono toll na foo xam ne avec la parité jigéen tamit elles sont obligées ñu dem ñun tamit di uti. Ndeye Gueye war a toll ci fanweeri at ci benn banque de la place lay loolee mi ngi ñuy nettali jafe-jafe yi mu amoon bi mu jugee ci ay congéem. li metti woon mooy tàmbaliwaat liggéey bi ci diiru ñaari weer donc war a bàyyi doom bi. Euh, surtout ci wàllum lekkam ndaxte xale bi tàmmoon na ba pare namp ci weenu yaayam donc war cee boole bi baron bi nekkoon na lu metti daal ci moom ba pare comme xale bi tamit dëgëragul woon xam nga au bout de deux mois nekkoon na lu lu jafe daal ci man. Ndeye Gueye ci occasion 8 mars bi ñu nu jot a tàllal suñu micro ñu ngi ñaan ngir jigéen ñi xeex bu baax ba ñu mën leen yokkal seen diiru congé de maternité. jërëjëf soxna na Nafisatu ca Mbour bajani gox yi ànd ak waa club des jeunes fii bu diwaanu Mbour ngir rek daal di euh, wax ci lii di euh, viol yi ak euh, mitital gi ci néegu sëy bari na fa lool na ko noonu it wàllum wér yaram ci ci néegab sëy loolu moo waral ñuy woo kilifa yi ak ONG yi ñu taxaw ngir yokk sensibilisation bi ba xeex loole nay musiba ci penc mi Abdourahmane Diallo. mbirum siif wala fitna ci biir néegu sëy wala bokk bay jàng ay jafe-jafe yi nga xam ne soxna yi dañ koy jànkonteel ci bëccëg 8 mars bii nga xam ni ñoom lañ ko jagleel ñii di agent communautaire yi bëgg ñu gën a taxawu soxna yi Amsatou Diakhaté Diouf bàjjenu gox la santé communautaire aussi bu jeune fille dañ ciy taxaw jafe-jafe mariage yi jafe-jafe liggéey bu fekkee xale bu jigéen bi aussi dafa ne ci koñ bi wala ne ci dëkk bi te njàngam teel a yàqu amul métier dinaa fexe ba yóbbu ko mu jàng métier bu ëllëgee mu jëriñ ko femme bi nga xam ne aussi dafa ëmb yàlla def jëkkëram dooleem bariwul ñun ICP yi jaar ci suñu poste de santé Tripono bi mën nañ jël femme en charge ba nga xam ne ba fi wax war a yegg yëpp loolu moom mën naa ne ci activité yooyu dañ ciy dox. xale yi jigéen ñi ñoom it bokk ci ay club ñoom sax ci lu ñuy gën a yëngu mooy fexe ba waxtaan ak seeni moroomu jigéen ñi bu ñu gisee mbaax waaye tamit nan la ñu war a mën a def ba moytu yu mel ni teel a ëmb ak xeet gi ni mel di leen dal awa aan ak yande fay. waxtaan ak ñoom parfois su ma demee naa fekk ay parents ñu toog ak euh, seen seen i doom yi jigéen yi. ñun loolu mooy suñu métier super éducatrice mooy ndaw bi jàngal ndaw. Mhm. kenn ne bi nit ku am problème su ñëwee seet suñu ñun suñu wareef mooy ñu jàpp ko conseillé ko bu nekkee tamit dañu am leneen li nga xam te ne mën nañ ko ko defaraal après ñu defaraal ko ko aidé ba mu génn si problème yooyu noonu. bàjjenu gox yi ak club bu xale jigéen ñi di rafetlu tamit taxawaay bi nga xam ne nguur gi mu ngi koy amal ci lu jëm ci yenn yi nga xam ne dafay gàllankoor jigéen ñi. RFM Mbour Abdourahmane Diallo. jërëjëf Abdourahmane ñu jàll wutali ca Fatick foofe it euh, nemmiku nañu ci biir daara yi la rawatina euh, li nga xamante ni mooy wàllu viole euh, di yegg gi ñu yegg ci tout tànk yenn yu jigéen juróom-ñeent ci yu nu fa xayma ci atum deux mille vingt et un gi ñu génn loole ak it yeneen ci xeeti mitital moo waral UNESCO taxaw ngir ak dakkal daal dina tàggat ñaari téeméer ak juróom-ñett ko jàngalekat ngir daal di leen baaxee xam-xam bu leen di may ñuy kar ak gàttandu doxalin yu ñaaw yu ni mel jëm ci jigéen ñi ba sax muy taal ñenn ci ñoom euh, faf ba école Aminata Goudiaby yi chiffre yi nag boo ko déggee sax daf lay xaw a jaaxal ndaxte nee ñu ci atu 2021 bi ñu génn lu jege fukki élèves yu jigéen sàkk nañu leen ci biir région bi mu am itam yeneen élèves yu bëri yoo xam ni door nañu leen wala ñu def leen yenn xeetu métital yi Mbacké Thiour moom mooy coordonnateur régional initiative violence de genre en milieu scolaire. juróom-ñeenti xale yu ñu sàkku yoo xam ne statistique yu hôpital lañu ko jox juróom-ñeenti yoo xam doomu nijaayam moo ko ëmbal mu ngi doon def quatrième violé ko mu ëmb loolu kaala yeneen xeeti violence jëm ci diw xale bi lu ko metti ñi ngi koy nemmeeku ba fii mu ne ci biir région bi rawatina a di nemmeeku Fatou Cissé moom mooy point focal initiative violence de genre en e wax boo xamante ne bii xale bi mën na ko téye tamit mu doon lu koy metti xale bi nga naan yow fa ngay mujjee du baax wala yow xamoo dara day dem ba gëm ko yaakaar ne moom xam amul dara te fa muy mujjee lu baax. ngir rek fexe ba xale yépp am tawféex ci école bi ñu yamale itam élèves yu góor yi ak itam yu jigéen ñi UNESCO mi ngi gunge bu baax baax académie bu Fatick jàppale ko ñu gën a ñi nga xam ne ñoom ñoo di jàngalekat yi nekkee ci élémentaire bi liñ ci namm nag mooy jëlee fi lépp lu violence boo xam ne dañ koy teg ci xale yu jigéen ñi nekkee ci école yi Mbacke Thiouna. dañu bëgg tabax ay yoon def ay pexe école dafa nekk barab boo xam ne dafa war a nekk bu dal barab bu jàmm parce que fu ñu wutee xam-xam nit ñi war a dal loxol kenn. formation bi nga xam ne nag moom la UNESCO jàppale inspection académie bu Fatick ko ñaari téeméeri jàngaleket ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñett formé na leen ñoom nag ñoo fas yéene sensibiliser seen yeneen collègues yi nga xam ni ñëwuñu woon ci formation bu ni mel Aminata Goudiaby Fatick RFM. jërëjëf soxna Aminata RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minute. pour man RFM mooy rajo bi gaaw ci xibaar yu xibaar yu wóor xibaar yeeg RFM bokk na ci lakk gu metti am démb ci bëccëg gi ñetti waxtu ca marché Sandaga euh, fii nga xamante ni moom mooy salle de vente lu bari yàqu fa nag ci wàllu jumtukaay koppar yu bari dem ca lakk gi nag sapeur yi def nañ lu ne ci njiital commandant euh, sapeur pompier yi euh, maam Jet Ndiaye waaye terewul jafe bi ci gënoon ràññiku rek mooy jafe benn bi wàllu bouche d'incendie fu nuy rooteem ndox ngir fay lakk gi reportage la sana koli ginnaaw benn waxtu sapeur pompier yi mujjee fay lakk-lakk bi muy jaaykat chambre à coucher Pape Diop di ñëwaat ci amenu lakk-lakk bi te wax ni ñàkk na ay millions yu bari. affaire bi daal juste dama toog sama place ay booru 14 heures quinze heures comme ça ma jékki-jékki am client bu ma doon jaay ma génn ma dégg rëng rëng rëng man pour man sax benn camion moo jóge Sandaga di kii wàcc wala dara ma ne client bi bul wàcc loolu dafa mel ni camion bul génn ko comme manga bàyyil ñu xool man nag fi ma génnee rek laa gis tàkk-tàkk bi. par la suite nag bi affaire yi tàkkee vraiment suñu bagage yëpp yàqu na ñun yàqule nañ ci ay trente six millions. muy xool bu budikam di lakk ci li mu mënul dara. Mamadou sey di delluwaat ci boroomam. ñun daa mujj lu may saal baa nga tàkk rek ñu génn deux minutes boo koy xool ci la zone bi yëpp tàkkandoo dara noonu la ci lépp jeex na génnewuñu dara way mais xëy na loolu neex yàlla daal yàlla baax na way mu teew ci bërëb ba ki jiite sapeur pompier di wuyoo ci turu Mame Jet Ndiaye di ñaawlu. ñàkkum bouche d'incendie yi. ñàkkum ndox bi de comme niñ koy waxee rek soo leen amee habitude di s'étendre en tout cas di assister ou bien di suivre actualité sapeur pompier Sénégal ci incendie yi chaque fois ñoom dañuy jooytu problème mu ndox donc amul bouche d'incendie boo xam ne jege na te yéen sax gis ngeen ko tollu woon nañ foo xamante ne dañoo arrêté lépp dem wuutiwaat ndox oto yi dañoo arrêté lépp dem rootiwaat. te xam nga ne safara si du xaar su amoon dañuy fay continuer donc loolu mooy principal problème bi. li war a lakk-lakk gi ba léegi kenn xamu ko waaye benn laaj di dellu si kañ la ñuy méngale marché Sénégal yi ak jamono. jërëjëf Lassana ñu jàll ba Bambilor foofee ONG trois d moo jàpp ne jot na état bi taxawu askan way yeewoo foofee ci wàllu jotinam ndox indiwaat branchement sociaux ndax seen yoxo jotul ginnaaw gi ba mun leen may ñuy mën di eh, xëcc ndox mi ba fa ñoom Abdou Diouf Diagne. ak màgg gu gaaw gi nga xam ne dëkk bi daf koo màgg bambiloox gox yu bëri yi nga xam ne ñoo fa nekk nag dañuy am jafe-jafe jëm ci wàllu ndox jafe-jafe boobu nag ONG 3D di si jéem a wut saafara Pape Assane Tine moom mooy coordonnateur départemental bu ONG 3D. xool gox yi nga xam ne xëy na amaana réseau bu seen Sen'Eau dina sore yoo ak dëkkuwaay ñu xool nu ñuy def ba samp fa maanaam ay bon fontaine maanaam robinet bête gox yi nga xam ne nag xëy na yaakaar nañ ne suñu doole may nañu ñu mën fa dugal tuyaux yi nga xam ne maanaam mooy réseau d'adduction d'eau bi ñu yeggale ko te yemul foofu it dem nañ ba xool ngir mu gën a matale kër yi nga xam ne ñoo gën a jege tuyaux yi ñu xool nu ñu leen di jàppale ba ñun ñu jël ci suñu gafaga fay dem seen oo ñu fayal leen ngir ndox mi mën a dugg ci kër bu weesoo nag njàppale kuréel yooyu le état bu Sénégal nag war na def ay jéego yu am solo ci li nga xam ne moom la ñu duppee ay branchements sociaux lu ni mel rek moom la ñu jàpp ne moo mën a tax jafe-jafe ndox daal di jeex ci yenn gox yi jooyu xol la ku may ko ci nguur ndax gis nañ ne euh, jamono metti na te njaboot yëpp ñoo am doole dem fay li nga xam ne moom la seenoo di yittewoo ngir ndox mi mën a dugg ci kër yi ba tax na euh, branchement sociaux moom bu mënatul a ñàkk la Euh, ñi ngi naan accès à l'eau maanaam jéem a def politique yoo xam ne dina jooyanti loolu ba ndox yegg ci gox yegg gox goxaan yëpp ba mën a dugg ci kër yëpp mais loolu nag ngir mu mën a am branchements sociaux yi yaakaar naa lu mënul la ñàkk la. ONG 3D nag dafa doon am nag ab campagne ngir daal di ñaax askan wi ci jafe-jafe yi nga xam ne nag ndox mu sellul boo ko jëfandikoo mën na koo am ci ñoom RFM Rufisque Abdou Diouf Diagne. jërëjëf euh, Abdou ñu dem ba euh, kër ak tasam xibaar gii di la Soleil ca Hann fii ci Ndakaaru dafa am ñaar ci ay euh, boromi salaire liggéeykat foofe yu nu daal di téye seeni payoor direction général bi def lu nimel moo waral collège des délégués ginnaaw bi nu génnee ci ndaje mu yaa di assemblée générale dal nañ ko ñaaw lu takki morso yu xonq ca dàq nu xalaatuk déposer préavis de grève nañ def lu ni mel di artu jëm ci grève ay bés bii di ñëw danu ci déglu Ndiol Mak Seck mooy coordonnateur bu collège délégué Le Soleil ñu déglu ko Jean Léopold Ndour tey euh, euh, nouveau collège des délégués du personnel bi ñu fal ci élection vingt huit décembre yi passé dañoo dajee tey convoqué woo personnel bi yëpp ñu ñëw wax dëgg yàlla càmbar situation yu soleil nekk fi ñu toll nii parce que depuis quelques années soleil mu ngi jafe-jafe yu tar te jafe-jafe yi kenn waralut ko kudul le directeur général monsieur Yakham Mbaye moom mooy toog daal ba mu ko neex mu tànn benn agent ne la ne dàq naa diw toogaat ba mu ko neex ne ah agent bi weer bi du faye ko damay bloqué salaire am moom tëdd këram fal benn directeur intérimaire soleil ñaari directeur moo fa am ngeen xam ko ñaari directeur moom dafa tëdd këram di ni benn waaye koo xam daf ko fal ne na mooy directeur intérimaire kooku mooy signe kooku mooy dàqaate kooku mooy bloqué salaire yi mais moom mooy joxe instruction yi ñuy bloqué loolu nag vraiment personnel yëpp la métti tey parce que mënuñ concevoir salaire nu mu sacré Sénégal nit kenn nit mooy liggéey pour dix personnes yaakaar ci moom nga toog toog ba am la neex rek nga ne tey ñaar ñi duñ fayeku peut-être suba keneen la ñu ne nag lii nag wax dëgg yàlla ay at a ngi ñu ngi muñ mais tey dafa dañoo sëf moo tax tey personnel bi yëpp a génn tey ñu defee assemblée générale ba pare assemblée générale bi tamit kàddu gi benn loon luy jot jot na ginnaaw de dafa jot fiñ toll nii ñu taxaw jàk jaamaarloog yaa xam mbay bëgg ñu topp ko ci ba mu sës ndax moom bëggul jàmm ñun depuis boobu nit ñaa ngi ut jàmm nit ñaa ngi def ay concession mais moom daal bëggul jàmm moom li mu bëgg nee na mooy écraser travailleurs yi. rédaction RFM fexe jokko ak directeur général bu Le Soleil Yaxam Mbaye mujjulantu RFM juróom-ñetti waxtu tegal fukki minutes ak juróom-ñaar. RFM maa ngi lay ziar Malal. maa ngi delloo ziar la Jassane. ñu tàggatu tuuti. acca bisimilah ñu tàmbali ak wàllu basket mën nga ko. non football laa gën a mën football ah, a mën. basket moom wax dëgg ah. <laughs> basket bi dañuy wax ak ñaareel bi journée euh, basketball african league ji di jongante bu euh, waa NBA Africa amal mu dajale champion yi nekk ci Afrique yëpp si góor ñi ñoo daje euh, tey jii la def ñaareel bi journée nee nañu Slack équipe bu Guinée moo dee daje ak waa Monastir Ferra Ferroviaro équipe bu. Mozambique la mois de juillet ak waa Dakar Université Club xale Sénégal yi ne dañoo ñàkkoon seen jongante bu njëkk bi bon tey faw nu jooyeen seen taxawaay ngir am ndam bu ñu bëggee am euh, sansu dem ci euh, final ba ca Rwanda li des ci bi lay journée dinañu ko yeggali euh, bis ni ëllëg àllarba ca Dakar Arena lay doon waa Njàmbur bu Louga ñoo nekk mbaba daara fi mu toll nii si Ligue bu Sénégal lu tax ba Njàmbur mënut am ndam lan mooy pexe yi ñu war a teg ba Njàmbur génn ci jafe-jafe yi mu ne bañ a wàcc si Ligue 2 bi ka ñu dénk yëf yi mu koy doxal di Mor la jàngat na ni lii buñ ko defee xëy na pexe judd. xanaa gën a waxtaanaat waxtaanaat bu baax a baax a baax xool fi mu toll nii eh, yaakaar naa ñu ci si nan lay def ba génn ci. situation bi nga xam ne moom la club bi toll parce que fi ñuy wax ni ñun ñoo jël ñoo nekk gannaaw. Euh, essayer comme ni ñu ko waxee léegi ci en français que ni am na ñetti match yu ñu génn yoo xam ne nii am na satisfaction ci wàllu jeu bi jàpp ni joueurs yi fi nekk bu leen bu leen bu ñu si mottalee yeneen joueurs yoo xam ne nii partie incha allah ñu mottale ko jël secteur bu ne euh, benn jour. travailler en collaboration avec ak ak section football bi. ak également entraîneur pour que ñu gis joueurs yoo xam ne dara mën a mottali équipe bi ba bu ñu innaatee mën a am victoire incha allah bi ci sa xalaat lan moo waral euh, début de saison bi nga xamee ne baaxul. xanaa lii dal équipe bi bëree bëri mooy année bu jot nga changé. nga kii bi nga nga nga changé euh, effectif bi ndax joueurs yi lu bëree bëri benn at rek lañuy signé ba bu ñu demaatee ci benn at bi pour nga teel leen day xaw a jafe. lu si yokk mooy bu njëkk daan génn di dem di préparer saison bi. hivernal boo xam ne dafa xaw a tuuti waaye ren ji muñ ñu woon def parce que amoon na leneen yoo xam ma nekk te mooy def AG bi ak préparer instance yi nga xam moom moo nekk équipe bi. nu wax euh, wàllu Ligue des champions pour jeexal ko ak euh, tey jii ñuy door euh, li jëm si phase retour huitième de finale yi nu ni na moom dina dajanteeg waa Red Bull Salzbourg la ñuy joué. Inter de Milan dafa war a jongante ji ak équipe bu euh, Liverpool ñoom Sadio Mané ñoo leen dóoroon nag ci ale ba ba tax ñu war a kon mottali seen taxawaay ngir mën a jàll si quart de finale Ligue des champions yi. lu ñu nag dinañu gis itam jogante dox diggante Manchester City ak Waspatum Portugal City daanaka mënees na wax dañoo doxantu ndax ale ba dañoo demoon dóor waa Portugal cinq ci dara loolu tax na ba fu mu toll nii daal ñu mën a sax bu leen neexee indi yeneen i gone bàyyi leen nu yegg li euh, liggéey bi jongante beneen bi gën a fës ëllëg nag dina dox diggante Paris Saint-Germain ak waa Real de Madrid ca ale ba waa Real dañu leen dóoroon ca Paris benn si dara démb nag ca France am na coow lu rëy lu fa wuññi woon gannaaw ci bana tàggatu Gana Gueye dëggoon fa euh, Kylian Mbappé ba mu daanu woon di euh, yuuxu mu juróon nag coow lu bëri lu nekk yàkkoon nañ ko ko moom Gana Gueye waaye Paris Saint-Germain ak euh, Mbappé tontu nañu ni loolu ci football bi la bokk kuy wax yaay juum te kuy togg yaay ëppale xorom mbaa nga yéesle xorom loola nekkutoon coobareem wante dinañ ko faj ba fi mu toll sax moom bokk na Mbappé si groupe bi war a ànd ak waa Paris saint ngir dem defante ji ak waa hmm. Real de Madrid Aladji Assane loolu jar na coow. ah xam nga tubaab bi football gaañante. waa xam nga tubaab bi. waaye tubaab bi ba ci lan soof rek. waaw li waykat li <laughs> waykat bi waxoon li waykat bi waxoon mbele mbele rek. waay wax rek mu ngi noonu ah, ku ci am looy wax kay dem penku. waaw waaye daal tubarkal gaañu hmm. loolu ci la bokk mun si ñàkk. football moom moog loolu ànd. waaw tey la femme yi def seen 8 mars alaaj hmm. <laughs> waaw. Ah. Ah. yow comme yaa ngi ceeg ñaar kay jàmbaar nga. déedéet laaj bi sax wax kay añee fii reeree fee rek. man kay laaj dama bëgg si comme que tey <laughs> bu subaa ñuy def journée de l'homme le ah, moom moo dee rek dépense lu ne. Ah. sàcc sàcc sax bu duggee ci kër gi yaa ngi war a jàpp. Eh, te te sax suñu xas ni. <laughs> malal si ñoo jaañ. déedéet waat. <laughs> rajo askan wi. ñu ànd ak yooyu jigéen kenn ci ñoom soxna Anna Rocha ci chronique culture bi. ñu wax tey jii lu soxal musique Kumba Gawlo Seck dikkaat na ci scène musicale bi gannaaw at boo xam ne da ko toog artiste bi daal di na siiwal ni ki démb singalam bu mujj ànd ak benn clip vidéo tekk gi mu di woy boo xamante ne mu ngi ciy delloo njukkal waaye juróom bu góor bi di Laye Bamba Seck mi génn àdduna Aminata Ba ngir yeneen ak yelefu jigéen ñi Jeba moom dina génne itam ab single bu bees. soo mënee waaw mooy turu euh, single boobule bu mu jégleel kon euh, jigéen ñi euh, sortie officielle bi ñu jàpp ko bu 18 ci ngoon jote woyam bi nag di guy bokk na ci wëy ñu gën a déglu ci atum 2021 gi ñu génn mbokk yi fi la ñu yem ci seen chronique culture di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah. Le Ndiambour hôtel et résidence seen savon yi di créole. ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen ni may li ci yéenikaay yi yéenikaay yi ñu am mbégte àndaat ceeg Mamadou Mouhamed Ndiaye jërë ngeen jëf ginaar bu wéetee ca walandoo wala fi nee nañu tànk bu ko neex lay gëse jigéen ñi ñoo aye tey ba tax ñoo ngi xëy di wal seen moome ci yéenekaay yu bari ñu xëyandol ubbi l'observateur mi ngi xëy di waxtaane lu bari ci taxawaay jigéen ñi ci réew mi am na it ay góor yu mu dajal ba laaj leen luy seen xalaat ci bésub tey bi mu di journée internationale des droits de la femme professeur Lamane Baye ak ministre ba woon di Aliou Sow ñoo ngi jaar-jaaru jigéen ñi ci réew mi Sud Quotidien bind na jigéen ñi ñetti fan ci weeru mars soleil national moom xëy ci xëtamu njëkk ba di ñu baaxe ay jigéen yu defi jaloore ràññeeku lool ci ay métiers yoo xam ne ñaari góor ña la ñu ca daan gis indil nañu ci ab capitaine bateau mu di Abi Guèye indil nañu ci ab mécanicien mu di Ami Jiba indil ñu ci ab ingénieur ba ci entrepreneur anki dina kay moom it xëy ak ñun ci ay jigéen yu jàmbaare yuy bay seen waar ba mu mat sëkk ci wàllu koom-koomu réew mi ku ci mel ne soxna Sidi Ndeye Mati Diol ñu gën koo xam ci m Këriñ ca Sor jigéen jeneen ju ràññeeku ci politique fii ci réew mi des na lu bare bare loi bi ñu tegoon ci réew mi jëm ci yamale góor ak jigéen mu di parité liise ko nee nañu def na fukkeet bi ñu ko taxawalee ci réew mi waaye ba léegi coow nga ca ne jëfe gi ñu ko war a jëfee des na xereñ gi ñu sentu ci jigéen ñit ba war a mën doxal parité gi ci réew mi dafa des mu di gis-gis bopp yéenekaay bi nee nañu ñaari soxnaa ngi yaay maane albis ak Zeynab Kan ñoo ngi koy dàq ci journal bi journal beneen mu di direct news moom xëy na saf-sàpp ci 8 mars tey bi bay delloo njukkal ñenn ci ñoom mu di jigéen ñi yore kër yore njaboot gi ñu di ay jàmbaar yooyu fàtte lekk-lekk lakk gu metti géwoon démb ca salle d'awante ga ca Sandaga moom la xëy di ñu baaxee ci xëtamu njëkk ba di ñu wax ni démb ay boori tisbaar lakk gi mu di jëyee joj ba léegi xamaguñu lan moo ko sooke li xam daal moo di li lakk gi yàq ca salle d'awante lakk ba doonub doom ci marchandise bu ñu ko doon xayma toll na ci ay millions yu bari ñi loru ci lakk gi ñu bari ci ñoom ñoo ngi koy joytu ci biir journal bi pompier fa demoon doon fay lakk gi yéenekaay bi mi ngi ñuy xamal ne lañ doon joytu bokk na ci li marché ba amul bouche d'incendie maire bu Ndakaaru di Barthélémy Dias maire bu Dakar Plateau di Alioune Ndoye ba ci maire mairub Lambaye di Assane Ndiaye Le Quotidien nee nañu gis nañu leen démb fa lakk ga amoon démb di ca salle ñu demoon fa doon masawu ji ña lakkale Vox Populi nañu salle ga ca marché Sandaga lakk na ba doonub doom démb marchandise mu ñu xayma ci ay millions yu bari des na ca lakk ga for nañu ci wewu nag ñu ne gaz bu kalaate moo taal marché ba marché ba ak ba muy lakk na meloon ak ba mu lakkee bu nuppi na mel photo yaa ngi ci xët mu njëkku la Tribune journal wa jeexal na salle d'attente source taxaw seddu la xëy ci njëgu dund gi ñu wàññi ci réew mi li mu ci gis moo di donte kilifa yi ci réew mi def nañu seeni pexe ba ne wàññi ñuy njëgu dund gi waaye booy seet wàññi gi ci aw làmmiñ rek la yem ne boo duggee ci marché ba safaan wa nga fay fekk ñu fekk président Macky Sall mi ko santaane ci journal L'Info yéenekaay bi gis ne li ko ëlëm guddi yu ñu toll moom Macky sàll moo di nu muy def ak fan lay jaar ba régler problème mbalit mi ci réew mi ne dafa mel ne ko far biir mbalit mi moom Macky Sall ginnaaw ba entente Kadakar fato njiitu réew mi Macky Sall taxawal na fi ginnaaw bi ay kuréel yu dul jeex yooyu toppatoo mbiru mbalit mi ci réew mi ñoo leen tax a mel ni UCG Promoged Aprosen ba ci Sonaged gi mujj waaye terewul mbalit mi ak i jafe-jafeem tey la gën a compliqué ci état bi ak ci collectivité territoriale yi le Ñambour hôtel et résidence seen savon yi di créole docteur Touraay ak seen déodorant Malaysia UMO ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi ñu àndoon ceeg Mamadou Mouhamed yi di ko gërëm ak yéen ñi doon teewlu xibaaru 8h gi ak RFM bokkoon na ci ne ay xibaar gën cee fës muy bëccëgu tey gi juróom-ñetti fan ci weeru mars di bi nu eh, jagleel jigéen ñi ci àddina seen ak ak yelleef eh, ci wàllu woowee ren lu ñu ciy waxtaanee eh, di thème bi mooy fexe ba ak yemale am léegi ci jamono bu ko defee ëllëg ñu am ci ëllëg gu sax ëllëg goo xamante ni gu barkeel lay doon ñu fàttali ni atum 1977 nag ak léegi la leen ko mbootaayu xeeti Nations Unies nanguloon bëccëg googe dina bari ay manifester yu nu ci amal ci mbooleem gox yi Sénégal RFM na ci wéy di ànd ak yéen naka noonu reportage bi ñu leen defal ci 8 geeg Nafisatu Ndiaye jigéen yi sàkku rek wàllu congé euh, di noppalu gi nga xamante ni yoon da ko may euh, ginnaaw ak mucc ñu daal di ko gën a yokk euh, ngir gën a yokk googeeg dallu ñoom soxna yi ca Mbour bàjjanu gox yeeg jeune fille yu Mbour la bëgg mooy ñu xeex ak viol ak siife gi ci ndaw ñi ak it mitital ci néegu sëy di violence conjugale moo waral ñu sàkku ci kilifa yi ONG yi naka noonu ñu gën a yokk ñaaxe gi jigéen yu nuy yegg seen kaw ak yu ni mel day ñaawtee fit di lu nu nemmeeku ci l'école yi rawatina ci Fatick Afrique moo waral UNESCO taxaw ca euh, daal di tàggat lu toll ci ñaari téeméer ak juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti jàngalekat ngir ñu mun di kar ak gàttandu jéeya yu ni mel leneen ci xibaar mooy tiis yu am démb ca marché Sandaga euh, ca salle des ventes euh, ñu yàqule fa lu bari ñoom mbokk yi yëngu foofee daan fa daan seen doole millions yu bari naaw ci lakk gu mitti goo xamante ni sapeur pompier naam def nañu njàmbaar waaye jafe-jafe bi moo doon fu nuy rooteem ndox ci wàllu bouche d'incendie ngir gën a mun a gaaw a fay googeeg lakk Abdoulaye Diop moo nekkoon ci technique bi El Hadj Assane ci micro bi régisseur d' antenne <laughs> régisseur d' antenne bi wax dëgg yàlla dama ko <laughs> xëy na Umar Diaw dama ko namm njaween bi ci kanam tuuti mu 9h lay ñëw euh, Yacine jërëjëf ci digital gi ci kanam tuuti Pencco geeg RFM soxna.